mel ni kon béy di liggéey boobu bis bu ko réussiree dina ci am mbégte ndax yaakaar naa ni naa euh, lim ko def nekk na loo xam ni du ko gaaw a fàtte kon su boobaa euh, genre vengeance lay doon ci moom kon bu xamoon ni que naata impliqué wu na ci mbir moomu yaakaar naa dina ci gën a sawar euh, te it nag dina réussir ñu jàll ci monsieur Seck moom nag gis nañu ni lu fësën bon bon moom moo ko gën a bon ndax yaakaar naa mag na noo war a comporté woo ak xale bu amee problème te mooy nga delloo si ko daal di koy jàppale daal di koy xelal kanam di def ak moom naka sudul noonu juste nag pour euh, venger wu mu mel ni kon moom monsieur Seck fa muy mujjee du neex ndax yaakaar naa ni jigéen dañu ko war a suturaal dañu ko war a wormaal waaye rawatina koo xam ni sa moroomu doom waroon na am taxawaay ci moom ñu jàll ci birima birima nag su nekkee si kanamu jabaram day victimisé di wane ni li muy dund neexul ndax jabaram tout temps mu ngi en alors que euh, day rek euh, couvrir ci moom ngir mën a coincer Birima lépp lu muy def xam na ko calculer na ko wanax euh, bu baax a baax mi ngi ci kaw ñi nga xam ni euh, ñoo di euh, cartel bi te nag yaakaar naa boo si jegee kenn ku ci bokk pour nga coince leen day yomb ñu jàll ci tantaawu Mariama moom nag li mu koy conseiller mooy bis bu ko Birima doxaanee mu daal di nangu juste ngir won Racky que ni ñoom ñaar yemuñu moom lañ gën a bëgg ci moom ndax moom Racky dafa lamb te loolu nag mooy bon xolam mu mel ni kon li ñu naan dëkku fayu dóore moom moo moo di Mariama chaque jour ñoom Racky ñu ngi track di ko bunduxataal di ko wax lu nekk waaye yaakaar naa fayu bi gën mooy li mu bëgg nga daal di koy jël ñu jàll ci inspecteur inspecteur nag réussir na convaincre jabaru monsieur Diédhiou ngir mu ñëwaat ci école bi ndax ku ne xam na ne jigéen xaalis moom moo ko yittee la te inspecteur ñëw wax ak moom ci waxu xaalis waaye inspecteur moom li tax mu sonn ci dafa jàpp ni monsieur Diédhiou moom moo baax ci école bi école moo ko soxla ndax yaakaar naa ne li ñu naan mag jar naa bàyyi si réew mag yu mel ni monsieur Diédhiou moom moo tax ndax bi mu yoree école bi daf ko yor ak euh, manière boo xam ne bu exemplaire la waaye moom monsieur Diédhiou moom mi nga xam ne alal alal yitteelu ko jee rek bëgg xalaataat ndax euh, jàpp na ni instant yi dafa war a dem retraite ñu jeexal ak séquence mujj bi euh, mu mel ni kon ñoom naata euh, suñu moyuwul rek léegi ñu jàpp leen ndax jamono ji ñu nekk seen kaw ñoom ñoo bari ndax gendarmerie mi ngi seen kaw di enquête te nag dem nañ ci terrain bi waxtaan ak victime yi mu mel ni kon yaakaar naa ni balaa yàgg dana rek lépp rek dina daal di feeñ ci li nga xam ni mooy vol yi ndax dëgg moo njëkk tey dëgg moo mujj kon mbokk internet yi foofu la yem ci épisode 10 bu série Mariama ma jox leen dig daje ci beneen épisode waaye laata boobu woy leen di abonné ci seen série TV te bu leen fàttee bës ci cloche de notification bi pour ngeen di jot suñ vidéo yi à temps réel jërë ngeen jëf